Bienvenue sur Salam Vision. ku xam Balla Gaye numéro 2 ambiance moo ko moom kaf moo ko moom daa fu ma war a café daa fu ma war a reetaan yàlla dogal na ñëw fekk samay supporter fekk samay am di jàmm moo war leen a bëggal te dama leen di bëggal ci moment bii nga ma fekk nag moo war leen a bëggal ci nga ma fekk mais moment bi nga ma fekkoon foofu du yoon wax waaw dernière xare ba dara la woon yàlla dogal na nag xëy na antuwul mais nag ñoo naa fekk samay supporter ci am di jàmm maa ngi leen di bëggal dëggal na waa GFC bu baax a baax ay seebi ay say fi ñëw ñëpp maa ngi leen sant di leen ngi dégg Ngaaka Blindé moom c'est mon ami personnellement baax la dañuy jokkoo dañuy am jàmm géejuwaay la waaw moom du Ngaaka te du te du mais ñoo far mais tey euh, defe naa fi mu nekk nii nag ay fan yu néew a def si sa combat ak ak ki moom mooy Boy Niang Boy Niang numéro 2 dégg nga démb déclaration bi mu def kera seen face à face ñëwuloo nee na daa am lu ko téyoon waaye démb tontu na ci loolu leeral na ko mais nee na yaag moom la mu la waxoon ba tey jugu bu dee daa am loo ko guuxal bu gina maanaam bu dimanche boo mënee jël ba kanam na nga ko jël ndax moom bu mënee jël sa bos du ko jël te maanaam da koy jël. waaw maa ngi gërëm Demba bu baax a baax waa euh, KPE maa ngi leen di gërëm baax di leen sant leen gërëm euh, di gërëm Aliou Sall aussi tamit ah maa ngi koy sant baax du ko gërëm. vraiment di gërëm Malick Gakou di suñu mag suñu kilifa ak Néné Tall ah maa ngi koy gërëm bu baax a baax waaw man nag euh, Babacar Lamine làmb kenn ñaanu yàlla jël bakkanu kenn xam naa ne bu dee bakkan yi moom xam naa dinañu bëri ginnaaw papaam wax na bu ñu bëree cinq minutes daanuma ñu jël bakkanam moom bu ñu jël bakkanam aussi tamit day metti nañ leen defal ñaanal ne nañu ñaanalante jàmm ñaanalante loo xamante ne moo am solo moo am njëriñ lii liggéey la liggéey boo xam ne kenn ku nekk da ciy tedd am lu mu jël yóbbu ko ci këram ay bakkan soxlawuñ ko foo la kafree te incha allah bu neexee yàlla bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko man nag li ma bëgg man ma ko bëgg a duma ba pare daan ko duma daan ko nga duma booy ñaa ba pare daan ko man nga lool dama a duma ba pare daan ko est-ce nga loolu dama koo bëgg a duma daan ko mën nga loolu dama bëgg a duma bara daan ko mooy lan ku ñuy duma ba pare door a daan la dama koo bëgg a duma Babacar xaa yoo yaa ngi may déggoo déggoo ma dama koo bëgg a duma daan ko aywa maa ngi leen nuyu bu baax a baax Balla ngay bëreeg mbër moo xamante ni comme ni ma ko laajee démb rek noon laa koy laaj wala lan laa la koy laajaatee depuis combat bi taxaw ba léegi dafa am engagement boo xam ne daf ko jël ci combat bi ànd ak détermination bu mat sëkk fu ngeen tase moo ngi jéem a heurter sa sa sensibilité lan ngay daloo sa xelu supporter par rapport ak Boy Niang li nga xamante ne moom lay waxee minimiser say qualité comme ni ma ko waxee parce que buñ gisee buñ buñ defee jàngat ci ay waxam jàngat boobu lañ mën a loolu lañ mën a gis minimiser say qualité di heurter sa sensibilité maanaam mel ni benn lamin lay taseel lan ngay dalal sa xelu supporter. waaw man ni may wax rek xam nga àdduna moom wax sa mbaaxu waaye yàqul dara sa mbaax man dama ko may sens ñaari jafet la tegale maa ko may sens amul lépp loo xamante ne rek bu may wax moom bu may wax na ma waxal lu baax ak lu rafet moom dafa ma war a respecté jox ma cër bëri naa fi mbër bu ne mais li jàmm solo xam nga mooy lan ku ñu may sa sens da ngay réglé tax yem te xam ne dañ laa may sens palmarès boole wuñu victoire boole wuñu kase boole wuñu xam nga la moo ñu boole bëgg a bëggal amateur yi ñu boole mais du daree laam moo ñu boole amul lenn non soxlawu ma mu xam moom bu ma respecté le buis laa dama respecté loolu maa koy liggéey maa koy jëf Balla Gaye numéro 2 maa ngi leen nuyu di nuyu Guédiawaye gépp Balla Gaye numéro démb dañoo seeti Boy Niang maa ngi nuyu le premier magistrat de la ville de Guédiawaye tey gis nañ ko ci bis bi ak Guédiawaye gépp waaye Balla démb dañoo seeti Boy Niang numéro 2 ñu gis ko mu xaw wàññi poids ci combat bi biñ ko dëkkee suñu micro laaj ko nee dafa pare pour jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro dafa bëgg conf combat bi ak yow dafa bëgg a jàkkaarloog yow ci xeex bi dafa bëgg a jàkkaarloog yow ci bëre bi est-ce que Balla Gaye numéro 2 pare na pour close combat bi ak ki nga xamante ni mooy booy Niang ndax premier kàddoom bi mu njëkk a wax mooy day may Balla Gaye une minute mu Balla gay ñëwul mu dem mu dem ba ci yàgg changer changé li nga xamante ni mooy communication bi est-ce que pare nga pour close combat bi. waaw waaw mais xam nga làmb moom làmb li jëpp solo mooy ku jël avance di nga bëri di nga xeex loolu jarul laaj bëri ak xeex la ñu wax waxuñu bëri simple de bëri ak xeex dana xeex wala dana bëri moom na ngeen ko laaj question bu am solo mooy est-ce que Boy Niang mos ngeen koo gis mu jàkkaarloo mbër am njaay joxal jóob c'est plus important mooy loolu am njaay jox jóg mosoo leen koo gis ah kon am na yoo xam ne nit bu koy wax da day nax boppam ay lu ma ko guuxal moom xanaa ñëpp ko guuxal moom lu ñu wax mu ne dañ ma guuxal moom mu xaa moo guuxal na bi yëpp yow combat boo am ñu dañ laa guuxal te yow bu abi sifle doo def li la war xam nga laa koy xamal na préparé lu bees li muy wajal ma ñëw ma defaral ko loolu solo te bu mu daw génn saako yi te bu mu daw dem syndicat jërëjëf ñu dégloo gaay jërëjëf Balla maa lay nuyu bu baax a baax di la siyaar démb dañoo dem Boy Niang ñu jëli ji ko nee na li mu sekk ak dina ko def dina ko def mooy nee dafa bëgg combat bu diire ngeen di ànd di nàcc di faju ji di dem di ñëw nee na loolu mënoo cee mucc te dina ko def ak yow jëflante yow ngeen ànd dem ardo ñëw parce que mosoo ko ñam. xam nga dem solo mooy li ma wax rek laa lay waxal ku sa taxaw am njaay joxul jóob man boo waxee say wax du ma la comprendre man question yi laa koy waxaat pour mu ñëwaat ko papaam dafa taxaw ne cinq minutes bu bëri man daanuma mu joxe bakkanam mu ñëwaat def première signature ne papaam dafa baax. moom une minute fu mu fu ma nekk man mu fekk ma fa duma ma daan ma moo ko wax wax waxaat amul góor ca wax ja sportif au niveau nga sport am doole am fit loo wax da koy def man nag ci leen koy waxee une minute yooyu ma may dinaa ko xaar bu ñëwul fu mu nekk ma fekk fa duma ko daan ko ñibbi Balla Gaye numéro 2 ñu gi lay félicité di gis géejawaay yi ñu àndee topp sa ginnaaw ñu gis mbër yi ne mën a xeex yëpp bañ dajeeg yow dangaa dugg seen gàddu dugal leen daan leen te dañoo gis combat bi waxoo ci wax xeex lu wax da nga naan da nga naan da nga mbapat adversaire benn toll wala da ngaa jàpp ni ah, bëri bu la mën a xam nga nag yéeg léeg-léeg dama yaakaar na ngeen di bëgg a fàtte Balla Gaye numéro 2 nu mu def ci làmb damaa bëgg ngeen di bàyyi xel loolu c'est pas n'importe qui ci làmb loolu yàlla def na ko. man seetaan ngeen sama ñaata combat man musuma xam palmarès su Boy Niang yàlla xam ne loolu mais jour bi nga xamante ne dama seetaan palmarès am ak sama palmarès ci ma décision vraiment je suis désolé mais ci ma décision nag bëgg ko may rek ak bëgg ko may xaalis moom boole moom ak lu amateur yi bëgg duñu benn ci dara duñu benn ci dara te bu at bi sifflé di nga xam ne duñu benn ci dara non c'est moi le plus fort plus fort de tous les loolu yàlla def na ko maanaam yaa dàq bëri ci mbéy su ma la nee deux c' moi Balla Gaye 2 je suis plus fort que tous les lutteurs oui c' est ma ñëw ma ñëw Balla Gaye 2 maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ñaanal sa adversaire jàmm Balla Gaye 2 ñu bari dañ doon wax naan Balla Gaye 2 amul état de forme. tey ñu gis Balla Gaye 2 ak ni mu mel nii ak li mu indi supporter yi tey lan nga ñuy wax le premier janvier loo mën a jëflanteeg sa adversaire sa état de forme bi nga indi tubaarkàlla macha allah. waaye liggéey la rek xam nga liggéey boobu yëpp mooy boo respecté say engagement respecté say supporter respecté say am di jàmm waaye s'il te say supporter respecté ñu lay ñaanal respecté ñi ngay àndal moo tax man toog di nelaw wóoruma. lépp lu may def fulla ak koy defee ak jom a ngor ndax damay kilifa yi topp sama jinaaw damay ñaanal di sonn ci man man liggéey ba dee te li ma leen waxoon démb tey laay waxaat mbër dootuma yab ci Sénégal incha allah bu neexee yàlla. jërëjëf. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu bu baax Balla. maa leen nuyu. waaw mais du dégg quoi. Balla maa ngi lay nuyu. waa ji la wax ne bii mooy sa neuvième fois ngay dugg géejawaay Balla. Balla maa ngi lay nuyu. Mamadou Diouf yi toog ah, maa ngi lay ah, ah, laaj benn question bii mooy sa neuvième fois ngay dugg Pikine dugg nga fa huit fois am fa six victoires ak deux défaites bii mooy sa neuvième fois nga fay dugg te boo génnee fa nga jëmaat. Balla lan nga pare pour indil ko li nga xamante ne booy booy ñaar ci lu tàng lu ko xamante ni nit ñi mën nañu koo séntu bu ñëwee bu ñëwee tey boppam naka ngay réagir. waaw xam nga fu nekk nii wax bi daanaka lépp jeex na ay at lañ doon wax ay weer ñaari weer ñetti weer benn weer ba une semaine matatu sax semaine maa ngi koy ñaanal jàmm moom suma adversaire ak salaam. di ko ñaanal moom ak fameem di ñaanal suñu père Gaston yàlla dafa ko jàmm di ñaanal yaay booy ñaa jàmm plus important je l'aime beaucoup mère boobu yaayam yaayam dafa neex xam nga lu tax dafa méngoog suma yaay yaayam dafa méngoog suma yaay yaayam mosoo ko gis mu wax lu ñaaw yaayam mosoo ko wax mu lu bon <clears throat> dama ko bëgg j'aime beaucoup te incha allah booy ñaam maa ngi koy waxal ne ku daan na seet yaayam te man dinaa seet yaayam incha waaw ku daan na seet yaayam ku daan na seet yaayam ndax man damaa bëgg yaayam j'aime beaucoup maa ngi sant suma yaay di ko gërëm ndax li may gis suma yaay rek laa gis yaayam ko maa ngi ko ñaanu jàmm léegi léegi waa waa Lamine man xam acca na ma dimbali mu tontu ma ci fooru ba fooru fooru Boy Niang lan maa ngi sant ñëpp di gërëm ñaar la ba fooru booy ñaar mu ne lan mooy fooru booy waaw booy ñaar champion la champion la damay wax nag waaye li may wax lépp dëgg la mais booy ñaar champion la ndaanan la mën na bëre mën na xeex te du ragal te une minute maa ngi koy xaar ñaa une minute maa ngi koy xaar Balla booy moom ma laaj la leen démb xam nga dama la daan gis ak ay kagul mais ñoom démb andi nañu kagul xanaa lan la ci kagul waaw mais maa ngi ñaan ñëpp jàmm ñaan Sénégal jàmm yéen journaliste yëpp maa ngi tuub tey jégalu di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal salaam lépp lu ñu leen fi def rek loo xam ne méngóo ak seen liggéey ngeen baal ñu àq parce que liggéey bi benn la parce que liggéey bi dafa metti maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam di gërëm nag aussi tamit booy yi nga xamante ne sama école de lutte suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi sonn ci man école de lutte bi toog fii yëpp ci kaw tribune maa ngi leen sant di leen di gërëm ma jigéen xam nga ma jigéen sama seex la te dama ko bëgg loolu bokk maa ngi gën waa Canaba guy gi guy waa Canaba Buuse wol waa Canaba Lac de Guiers wol waa Casamance Père Diaw wol waa Waalo Omar Gueye wol waa Seedo